waaw njëkk bi mu ngi yitteel maire bi nekkoon euh, xawma nan cité lan la cité xawma nan fii ci Padoa mooy maire bi feeñ ci kaw ci kaw ci kaw immeuble boobu il paraît que maire la boo xam ne euh, d'après information yi dañ ko internet fi mu doon ni pour xool problème mu xel la amee mais daal ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon ci koñ boobu euh, façon version bu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy wax ci maire bi nitu guddi laa setul yu mel noonu donc image yi mu ngi noonu muy muy muy boo xam ne fi mu toog fu kawe la te itam. fii na di parñi lii. kenn xamul waaw boo ko mënee jubbanti nga orienté. Ousmane di parñi lii. boo ñu ko orienté lee tuuti ñu mën a. nga nga fexe lépp lu ñu wax nga koy génnee di ko affiché. waaw képp leen ko mu wàcc. maire bi muy waajoo wax ci waajoo laa leen bëgg tegal ay audio yoo xam ne waa ji mu ngi expliqué am na lu muy expliqué donc dañuy dañuy déglu waa ji d'abord ñu xool li mu wax lan la ah parce que. mais Marie bi ko jëlul day defaat day naawaat parce que moom mooy pouvoir bi. tere bi ñaari petaw la yu ñu ëw boole ko ay si ay kii ci biir ak benn seetu bu nag ci digg lii téere bu bees tàkk la ba pare ñu boole ko benn laar bu weex. cest à xam nga malheureusement Afrique li ñuy dal ni yëpp si jamono ñi ngay dégg mi ngi këpp mi ngi daanu kër yee ngi di nit ñi ngi dee naa yi bëri ni ñii la du ñeneen fii mu toog jamono nit ku yàlla bind ak loo at det at ak loo aay aay ak loo commando commando mënoo ñëw toog fi mu toog billaahi wallahi benn pouvoir may la pour nga toog sapeur yi bi ñu ñëwee parce que distance bi un mètre quatre-vingt sapeur mënuñu ko policiers yi mënuñu ko ñoom ñëpp lañoo waar ñoom ñëpp dañoo waar bi ñu commencé nag taal suñuy bagage si la commencé changé nekk mag parce que su fajar gi xale la woon fajar gi bi fay bi ñu koy soog a découvrir découvrir découvrir foofu mu toog xale la woon ay affaire ay 35 ans ngay joxe affaire yooyu wallahi asim mais bi ñu yéegee bi naaj bi parce que wax naa ko nee naa ko lu mu gën a naaj ngay taaral sa bopp waxal yaay kat ak foo dëkk ak moo def ba egsi ba fi ak koo doon wër donc ñun xam nañ ñoo yëpp dañ ko doon bëgg a wax loo mais wax na ne mujj na wax Njaakunda la tudd la dëkk joxewul turu turam joxewul santam joxewul dara yaa ngi dégg après fa la nekk di dof sof la ko wàccee mais kii buñ ko bàyyi woon fii tuuti rek ba mu naaj si ngeen di gis loolu musul gis parce que ay mbokkam dañuy daw ñëw te dañ koy jaral ñu jógee Njaakunda ba fi ñëw pour pour ñëw wàllu si ko yaa ngi dégg dafa rëb bi nag sooy moo tax mu toog moo tax mu dal fii fi mu toog nii amul kenn ku bu bàyyi leen masla amul kenn ku waaw ram kii euh, dégg mais parenthèse bi néegu jàmbur la buntu kër gi dañ koy tëj dafa am caméra caméra yi amul kenn moom jaaroo fa ñëpp visionné nañ ko xam nga wax ji mooy ñii ay nit lu guddi lañu ay nit gudd la mi ngi dëkk Njakunda nee na Njakunda la dëkk foofu la jógee naaw ba fii ñun fan yëpp suñu doom yi nañu tëdd tawal ak ak yu bëri donc am nañu ci ay pexe ay ñaan donc Sénégal ñoo war a bàyyi maslaa te xam ne lii réalité kii am na plus de cinquante et quelques années cinquante sept ans cinquante cinq ans yooyu laa koy jox parce que man maguma ko maire la waaw maire naka la mën a tëbee hauteur parentère parentère un mètre quatre vingt la parentère yi fi mu nekk nii un mètre quatre vingt la femme bi mënul sax moom si taayam deful soixante dix centimètres moom si taayam laa wax deful soixante dix centimètres soixante dix la yem waaw ko xam nga bu ñu mas laa wax ci parce que daf ñuy lor dañuy préparé wu en conséquence ñii ay envahisseurs la ñu dañ fi nekk di naaw dëkk ak dëkk cof gars yi di yóbbu loolu mooy wax ci wax ci yëpp loolu la waaw lii moom kenn bu pompier sax mu amuñu fu ñu jaar suñ fa amoon jaar dañuy wàcc jël ko mais ay échelle la ñu uteeg lu nekk man war naa leen ñu ñëw ko dund fajar ba léegi fajar bi ñu noddee rek ba pare la cang foofu mënatul dem fan la newoon nag avant fajar fan la jaar guddi gi moom fan la nekkoon xam nga ni kii du nit nekk jëfur na fi waaw téere bi mu takkoon ci bopp bi maa ko mujj a jël téye ko kon ni ma ko expliqué benn téere la bu am ñaari pettaaw ak seetu ci digg bi bu bees takk ko takk yaa ngi dégg yooyu yëpp téere beeg yëpp ki ñii duñu ay nit ndax préparé wu leen ci ñii ñu bëri ngi ci njaboot gi muy daal njaboot gi ñii la du keneen ay nit la ñooy naaw di def lii la kii kenn mënu ko utal explication kenn kenn benn doomu aadama sapeur pompier bi nee na man mënoo fi yéeg kii fan la jaar man kenn xamul mais ñun ñëpp xam na ni kii nit a guddi la. muy noonu euh, noonu la waa ji expliqué yëf yi euh, ci ci ci ay kàddoom hmm? euh, li mu waxit dégg nañ ko mel na ni moom moom dafa dëggal ni ndaw si nitu guddi la am na ñoo xam ne moom dañ ne déedéet du nitu guddi mais xel mi neexul mais même ñi dëkk foofu ak ñi fekkee coow li moom mii dafa fekkee lépp moom dafa toog di fekkee lépp moom kii di kii di wax nii euh, il paraît que ndaw si bi mu bi mu bi mu wàccee doon na laajaat téereem bi euh, gëtal nañ ko mu wax nangam fa fii laa dëkk ak fii nangam sàngam yu mel noonu mais leneen nangu ko wax mais information yi ñu jot ñun mooy ndaw si dañ ko interne bi ñu ko jëlee foofu vite fait dañ ko yóbbu interne ko ndax problème mu xel la amee loolu lañ loolu lañ wax est-ce que war nañ gaaw a tuumaal doomi aadama xool ko rek ni kii nitu guddi la waa xam nga Aliou xam nga laajte laajte rek tuuma la parce que boo xasee laaj am na lu sa xel daj bala nga laa bala ngaa laaj du dëgg mais xam nga ñoom ñaari mbir dafa am si soxna si mhm. xam nga mooy lan suñu lijjantee ba xam ni moom du loolu ñu foog ci moom si lañuy lijjanti fan la jaar ba toog foofu d'accord mm-hmm. ma ni bu ñu mënee lijjanti ba xam li mu doon ba si la ñuy doog lijjanti fan la jaar ba toog foofu mais nit ñi moom lijjanti wuñ lu mu doon en attendant mais ñoom fan la jaar ba toog foofu lañ gën a. déedéet xam nga tey nit mun na ñëw yaa ngi dégg mun na nekk boroom xam-xam mun na nekk lu nekk mais mbir su fekkante ne nit def na ko mbir bu dee nit dafa am lu mu def yaa ngi dégg da ngay indi ñi nga xam ni leer nañ la xam nañ ci domaine boobu dara. wax ci ñu wax ci. mais mais kii di wax ni jumboor yi. waa que mel ni borom dara la parce que gis nañ ko moom mu ngi doon def ay affaire ci. waaw xam nga gis nañ mu taal cuuraay affaire bi di jëf-jëfi affaire yooyu. yaa ngi dégg mais pro buy wane ne. yaa ngi dégg lii la si wax la yam parce que benn benn lay pàkk la. Ah, lu dëgg parce que moom bu nee ma bu nee ñu ma naar il faut mu ne ñu naar yaa ngi nii. lu dëgg. Mhm. parce que am na tey ñoo xam ne bu ñu ñëwoon. te foog nañ ni loolu la yaa ngi dégg mun nañoo fexe ba wan la carrément lii la d'accord du dëgg léegi nag comme caméra surveillance ak yooyu yëpp amul te tamit foofu mu dem toog pour foofu toog fa yombul wax dëgg yàlla toog fa yombul mais fu mu toll nii man li ma lay mën a wax te wax la ko mhm. mu nekk loo xam ne lu maandu lay doon mhm. man de bu doon may ñoom damay njëkk a lijjanti moom lan la ba pare su ma xamee lu mu doon rek di nga xam lan nan la def ba toog foofu d'accord mais tëb tëb rek ni lii la yaa ngi dégg mhm. te te loolu nga bëgg koo ñëw tamit ab nga bëggal ñëw léegi parce que ñun ñëpp suñu àndandoo ni lool la loolu da nga koy daal di dëggal si saa si mhm. ba pare loolu day nekk actualité boo xam ne da nga koy commencé tasaare ba pare ñun war nañuy moytu lu bëri xam nga lan lañ war a moytu Aliou c'est bu ñuy wax ci mbir yaa ngi dégg ñu laaj ko ñi nga xam ni se ñu laaj ko ñi nga xam ni seen wax maandu na. waaw ah, loolu laa bëgg waaw ci mbir mu ne nag mais léeg-léeg da ngay gis ko xam ni mbir lii moo xew rek wax naa la ko fii ba sonn xam tey émission muy ñun muy ak ku munti doon émission bu nekk dafa am ñu ko yàlloo mais dangay def dara yi di def dara moom ak Aliou ak Ndeye Gueye nga gis ko daggee ca làng nga ne nañ def bu mel noonu. fekk na xoola liggéey boo mën a gis wax naa la ko dama koy bantuwaat daganut ni nga koy defee mooy dagan waaye waxin yaa ngi dégg dafa am solo ba pare fexe nañ ba nga xam ni rend bépp wax bu baax dundal bépp wax bu bon ci lan ci partage ak communication si lañ ko saxal parce que tey ki kii li mu wax nii ah ñun weddi wuñ ko de mais dañuy jàpp ni xalaatam la wax. du dëgg parce que gis naa moom biñ ko wàccee boroom kër gi di ragal naan génnee leen ko ba ci biti ba pare. mu ne nañ ko génnee ci ba ci biti ba pare maa ngi déglu vidéo bi. mu naan génne leen ko ci biti ba pare. si si femme aussi foofu mu toog yaa ngi dégg foofu mu toog. doy na waar torop mais xoola lépp lu mu mënti doon moom mënta génn cadre nit. parce que bu nekkoon jinne doo ko fa fekk bu nekkoon malaayika doo ko fa fekk waaw du noonu du dëgg mooy bu doon jinne buy buy lore la jumboor ñu waxante dëgg bu doon jinne buy lore la xëy na du jàng alxuraan toog di tari ay inna ahtaynaka al kawsara moom ci boppam waaw waaw xam nga xam nga tey segam mi ngi tari ay alxuraan affaire yooyu gis nga fi ñu xam ni si dëkku ñag yi dañuy tari dara rek daa di jóg nekk ci kaw air bi yaa ngi koy gis. dañuy jàpp rek dem seen voilà kaa ma wax la dara sénégalais lépp do xam nga tey jii bi ñu xëyee suba ñëpp a tiit ci soxna si. waaw waaw ñu ñu ëpp dañ tiit ci soxna si. xam nga Sénégal ñu war a jaamu yàlla lañ. bari na ñuy wax te amuñu fit. lu dëgg. parce que yow loolu nga gis ak tiit kon ñun ñëpp war nañ dellu ci yàlla. wax rek. ku ñëw toog foofu rek coow li mel ni jox ko ndaalee jox ko ndab li yaa ngi dégg. problème bi fi nekk ni mu baree ñu daa di suul problème yëpp nekk ci problème yooyu di wax yaa ngi dégg loolu mooy affaire bi waa dëgg yàlla parce que soxna si daal man li may wax mooy hmm. lijjanti lu mu doon ba pare doog a lijjanti lu ko teg foofu man yaa ngi man de wax dëgg yàlla ah, Alioune man li ci mën a wax rek mooy pour man euh, nit ko àndul ak xelam la quoi sama xalaat bu gàtt mhm. ci li ma yaakaar parce que tamit doo tëb tëb tëb rek jël doomu jël nit rek teg takkal ko benn étiquette te xamoo lu mu doon. jugé ko quoi. problème bi kay mooy du ko yéegal foofu loolu mooy problème bi mais man moom du ma jugé doomu nit hmm. te xaw ma lu mu doon parce que yàlla rekk xam. Hmm. du dëgg li problème bi nañu lijjanti li ko yéegal foofu ba pare. Hmm. il paraît que ay mbokkam génn nañ ñeneen dafa àndul ak xelam. àndul ak waaw ay mbokkam génn nañu. mais nañ am euh, njott bu rafet rek mais xam nga ñun Sénégal moom bu dara xewee dañ ciy profité waale xam nga kenn ku nekk li nga bëgg wax nga wax ko mais yàlla na yàlla dolli sutura rek te sàmm ñu. Mhm. sàmm suñu njaboot. Mhm. waaw loolu rek daal moo am solo waa. Euh, en tout cas euh, kenn rek laa mos gis mu def lu mel noonu. muy kan. benn sëriñ. Mhm. dafa ñëw fenn di def gàmm ñu jox ko. Euh, néeg bu am salle de mu ne noonu moom du dem wanag ah, quoi. ki ngeen yokk seen micro. du du soxla. nee na du soxla. ci régie bi. Mhm. sama micro mu ngi tàkk ah, bu fekkee foofu. du soxla moom sanguwaay yooyu noonu. Mm. mu tëdd ba gudd ba pare nee na gàmm gi lépp lu luñ fi togg bala kaa nit a lekk na ko ñam. Ah. mu ñam lépp te biir bi baaxul. guddi gi jot am taalibe bu xër tëdd si buntu buntu néeg biir bi yëngal ko xamul nu muy def saa bu yeewoo taalibe bi yeewu ne ko sëriñ loo soxla mu tëjuwaat jël benn mbuus mu newoon foofu daa di ciy neefare yaa ngi dégg bi mu ci neefaree ba pare mu ubbi fenêtre bi muy wëndeel mbuus mi xam nga kon fenêtre bi dafa kawe mm. mu sànni ko waaw daa di tëdd si fajar gi nit ñi ñëw di ko siyaare mu toog di wedd rek gis neefare yi ci kaw ci kaw toiture bi rek mu woon ndongali mu ñëw mu daan ne ko gis nga lii mu ne ko waa mu daan ne ko bu nit ñi ñëwee neel yaa ko fi def rek mu daan ne ko no sëriñ démb may nañ ma fi un million dama la koo bëgg a jox pour nga jàngal ma noo def rek ba day toiture bi <laughs> kooku daal laa fi mu def lu mel noonu waaw bu dul lool daal moom wax dëgg yàlla doy na waar daal yàlla noonu ko sëriñ yaa noo def ba day <laughs> pour moom sëriñ bi dafa naaw quoi tag foofu wa bàyyi ko fa wàccaat <laughs> loolu la daal <coughs> mais affaire bi daal doy na waar torop mais teel a jugé nit daal baaxul. en tout cas man moom euh, li may wax rek mooy euh, gis nga nit ku nit ku setul te te ànd ak lor doo laal alxuraan doo ko wax sa làmmiñ di ko tudd mukk te kii ñu ngi koy dégg mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi répété ay ay saaru alxuraan ci làmmiñam nit ñi di ko dégg donc. ci biir vidéo yi boo déggee mu ngi wax ci kaw inna ah tey naakal kaw sara yu mel noonu donc am na ci yoo xam ne nag wax dëgg yàlla boo ko dee wax waral seetlu yow miy wax sax yaa ngi wax naan mu ngi nii di tari alquran est-ce que man damay laaj parce que aw ma xaw ma ci domaine boobu dara sëriñ si ko xam laay waxal bu fekkee am na ku ci mën a dugg sax ku ci mën a dugg nga leeralal ñu est-ce que euh, jinne wala nitu guddi guy loraate dina ñeme alquran à ce point que dina ko ñeme à ce man loolu laay laaj te alquran yàlla moo wax ci biir ne moo wax ak yenent bi ne ko saa booy yëkkati alxuraan di ko jàng def naa benn barrage sa digganteeg seytaane ak njabootam loolu kay lu leer la kon kay alxuraan euh, nitu guddi koo xam ne dafay lore du ko ñeme mukk foo ko laalee mu tëb danaan mëy parce que da koy lakk seytaane ak alxuraan ànduñu kon nag nañu bàyyi di jaxase lu bokkul mbaa ñuy mbaa ñuy teel a jugé nit ki kenn ku ci nekk nag libre nga pour def sa commentaire libre nga pour wax mais juge daal la yàlla bëggul moom rek mooy juge bi moom mooy le seul juge moom moo war a juger nañu bàyyi moom mu juger. mais guddi man xam naa ci dara man ndax man jàppoon nañ ma man. Hmm. barki Seydina Mouhamed laaj samay mbokk. non am na. si dafa am na. benn monde la boo xam ne ñu ngi fii. kon kay yow mënoon nañ la laaj affaire maire bi rek nga wax ñu. non man man du ma juger moom moo am du man kii xam na loolu ci ci lan la ma dalee histoire bu garaaw laa lay expliquer laajal samay mbokk sama yaay moo waroon dund man dama temps bi ma gënee nekk boy di jet simb loolu simb laa doon jet simb ma génn rek kooku dóor ma ni ma ay yow mi yaa mën a jet ma yegg suñu kër doxatuma gisatuma waxatuma pendant huit mois barke Cheikhul Khadim boobu ñu ngi dëkk marché bees gi bulloo ji moo ma faj buloo ji bulloo ji man bulloo ji moo ma faj. xam nga luy bulloo ji. xam naa luy bulloo ji. Ah. man kooku moo ma faj. juróom ñetti weer laa tëdd doxuma waxuma gisuma. est-ce nekkul looloo tax nga kon <laughs> parce que na de am xel mën a mën a yoon a jat xel moom moo dem kii nday mi ñaakul wax na boppam. waaw dafa am monde invisible boo xam ne ñu ngi dox. yow gisoo leen mais ñoom ñu ngi lay. ñu ngi lay gis ñu ngi lay gis xoolal nitu guddi dafa am di. monde invisible walla nitu guddi am na ñoo xam ne dañ lay gis te yow doo leen gis loolu la ñuy wax nitu guddi yow nag temps bi nga xam ne nii moom nga war a dox boo ko dépassé gis loo war te gis. Hmm. en tout cas daal maire bi daal moom foofu mu toog day nawaar lool. ci lu yàlla na tamit ah mën na nekk parce que mun naa ah, ah, waxee neneen ah fekk naa mais nag man damay wax ni ba damay wax ñi nga xam ne seen xel àndul ak ñoom des fois nga gis koo xam ne am àndul ak xelam mu sukk ci benn mbalit bi lekk te yow doo lekk. te moom ah. dara du ko dal. des fois nga gis ko mu tëdd foo xam ne mën na fa tëdd ay at du sangu. laal ndox te du ko def dara te dara du ko dal te nga xam dof moom nañu xool euh, foofu boo demee ba sa xel naqari. xoola fu ñuy xamee nit. ni kii nekkatul. Mm-hmm. parce que bu ñu demee ba sa xel teeyatul rek nekkatoo nit. nekkatoo waaw parce que bu waaw gis nga nit fekk ngay nekk nit. Mhm. sa xel day teey. Mhm. parce que gisoo nit soo dendeek moom muy tef muy tifleek di dafay affaire kooku mi ngi yëg nit mais boo demee di gis nit ko xam ne du tifli lu bëri tey bari wax. di mbab mbab lu ne mu dugg ci comme Ndeye Gueye. comme yow rek jógal gaaw quoi <laughs> loolooy affaire bi quoi wax dëgg yàlla waaw. parce boo yoree dee sam xel du tey quoi waaw. waaw mu ngi noonu de en tout cas man moom falaate ku wax ji rek ci ci ci ci lu ci lu lu yomb la lu yomb lu yomba lijjanti la te itam lu yomb kii la jarul di xëcc ñoom de ka taw. lu ñu jomb ko ñàkk lu ñu wax rek lu ne yóbbu ko fa. ndaw si nii la dafa kii wa dafa jëfu rek nangam sàngam ay def ay micro ku noonu di wax non non non hmm. loolu sonn man man non daa am ñoo xam ne bu ñu xëyee te waxuñu duñu am nga wax lu am njariñ ah léegi man kaan yu'min billaahi wal yawmil aaxir yamaleel say wax waay aw yasmut yaa ma gën a bari wax fopp loolu xadis la mi nga xam ne dañuy émission sax ngay waxaat si suuf Nabou Ngom Nabou ngoom seen web sa yi may envoyé euh, gis naa ko danañ non maye deret lay def waaw maye deret la sama rakk jooju ah. sama rakk ji de Nabou Ngom seen web nee na dañuy maye deret man bokk ma ci man moom daanaka xam nga gis nga ma ni yor ma deret man mënumaa maye deret ndax man ndax ma tëddee feebar man dañ maa may deret ak man pendant ah, waaw xamal la noo leen ci génnee ngeen man man la may mayawaat man deretu jàmbur yi laay liñ la may mayawaat man fan yee laa jug ci ci ci wopp ji damaa woppoon ah, comme ñëpp xamal la li ngeen wax nii du lay bu leen na saxal mayu deretu kii garaaw na senegal yëpp dem maye ah. deret parce que maye deret bu baax la suñ benn waay la set la mercredi ah Aliou mu gis ñuy maye deret mu dem ñëpp foog ni moo gën a bari deret dañoo rocc mu xam <laughs> billaahi wallaahi dañoo rocc rek mu xam te ponkal la toll na ni baalagay ndekay loolu lépp deret amu ci dañoo rocc rek mu daanu xam ndox la kon korom ak fay loolu beneen kaa bi hmm. ak fay kii nee na nañu woo korom ak fay mu mu nett le niñu xek ndaw si lu mu doon waaw garaaw danañ lijjanti korom ak fu mu dëkk ñu dégg ko micro donc Nabou Ngom sa vidéo yi jàllale jàllale naa la nag topp kaa léegi xanaa di nga ma bàyyi ak sa vidéo yi ngir yàlla statut naa ko jàllale naa ko topp kaa le 7 le mercredi ca Seneweb lay amee na ngeen dem yéen ñëpp ngeen maye deret. en tout cas nee ko ku ñëw maye na ko jox rempli deret. waaw ah, dinañ ko rempli. waaw ah, coca ak yooyu yu saf ah, yooyu. non am na kalaasu bu sagay geeg yooyu boo leen diggee lool même bu ñu amul deret dinañ lijjanti deret ñëw ndax lekk gi. ma wax la ko de. <laughs> ñu jàll ci inondation yi nga xam ne am na fii ci Sénégal inondation moom ak Sénégal ñoo ànd mais bu demee ba ay bakkan di ci rot quand même laaj nañu def ci taxaw seetlu président Macky Sall bokk